yàlla sàkkul sàkkul géer sàkkul géwal sàkkul loobe sàkkul dara lu dul doomu aadama la sàkk ñëpp bu ñuy deewee amul almeeri géwal amul almeeri géer kii duñ ko suulee mu saxe kii buñ ko suulee mu saxe kon ñun ñëpp bokk yem si yàlla waaw ñun ñëpp yooyu yëpp ay ay détails la rek amul boo déggoon ñu naan maanaam affaire u géwal ak géwal dañ naa toog di xewle maanaam maa bu ñuy waxee wax bi du jëm kaw fu am ku jóg nga xaama jottali jottali boobu nag mooy waral lool waaw jottali boobu moom moo waral na ay géer ay géwal yooyu yëpp dara am si dara géer géer bi géer bi gënul géwal bi géwal bi gënul géer ñun ñëpp a yem si ñun ñëpp a yem si yàlla ñun ñëpp waaw yàlla bañ na bale doomu aadama ñun ñëpp benn lañ si yàlla waaw kenn gënul kenn alal àdduna nag liggéey ku liggéey jariñu waaw ku liggéey jariñu waaw fekkee dañuy dem ba xaw a néew a doole géwal naa géwal gii ma nu ma ko may sama doom yooyu ay détails yu ndaw la rek ay détails la yooyu amul fenn gis ñu ko fenn fu yàlla yàlla tagg ko fen waaw parce que affaire affaire racisme la waaw parce que bu géer gi bañee na daf xeeb géwal bi géwal bi tamit da koy xeeb te yooyu amul alors affaire adduna la rek yàggu te yàlla nu ñëpp la yàlla sàkk ñun ñëpp benn nañ ñun ñëpp doomu aadama yëpp muy tubaab beex américain beex ñun ñëpp ay doomu aadama lañ ñun ñëpp a yem ci yàlla waaw. munoo duma may sama doom kéwél wala munoo ne du may sama doom géer ndax dañ ko dégg yàlla bind ko ci téere wala lan amul man fu ma suul fa ne suul sama morom fu nu suul góor suul fa jigéen kon yàlla moo wax ne kenn ku ne mu bëgg may ko ko waaye kii géwél la kii géer amul fenn na sëy ta yàlla tax ndax gis nga koo sëyal ta yàlla tax yàlla jubale leen waaw mais nit a ngi jóge ci àll ba di tubaab bu xonq ñu may ko sa ñu may ko sa doomam dañu xam lu mu doon kon lu doon lu doon wax naan du ma may géwél du ma may géer tubaab bu xonq ba nga yor moo yor xetam gu bon googu nga xamante ne bu la bu la jegee ngay bëggate te yaa yaa ngi koy sëyal ndax lan alal te du jullit da lay tuub ne na tuub naa su te bu yeggee du tuub day continuer la mu daan def du mës a tuub kon nanu bàyyi seen façon boobu question de parler la nanu maye seen doom yi ñu sëy géwél laa géer la moo fi amul c'est foo loolu amul ndax géw géer man xaw ma géwél xaw ma mais géwél métier la tëgg métier la lépp métier la mais du dara nanu bàyyi yooyu ñuy def ay affaire euh, géwél laa géer mu naa ko jël teg nee loolu amul loolu laa amoon lu may wax waaw jàng bi sa maanaam mooy loolu ça existe pas loolu bu njëkk ba la amoon mais léegi fure mu toll loolu moom ku koy def moom je pense que loolu moom mun naa wax ni da quoi bon kii géer kii géwél kooku ça existe pa tey imam bi taxaw si jàkka ji di jiite mu na nekk géwél mais tey jumaa ji bu fa duggee day am tukulër am géer am géwél am ñëpp almeeri almeeri géer a géwél fa la am amul kon book loolu ça existe pas nañ may seen doom yi balaa leen di leen si fekk quoi parce que loolu moo gën a rafet quoi vraiment soo gisee accident yi am rek c'est ça loolu loolu loolu loolu la mais quand mu ngi wàññeeku quoi mu ngi oh, nga bay may sa doom ñu def ko na ko su noonu nga bañaat ñu def ko na ko noonu mu jékki da ngay pour maye ko kon loolu amul sens nañ may xale yi xale yi sëy parce que tey boo xoolee majeure partie jigéen yëpp tey macha allah tey dañoo bëgg sëy bon vraiment su ma soyoon daal loolu moom ñu daal di koy dindi kii géwël kii géwël la kii géer rek mais Wally Seck géwël la te mu ngi tëral géer yi di tëral ñooñoy tey géer yi ñu ngi tëral géwél yi tey géwél yi ay noble lañu géwél yi ay garme lañu tey géwél yi ñoo fi nekk di tëralaatee ah ñeeñu ñoo fi nekk di teralaate ko nañ bàyyi yooyu mm-hmm. Wally Seck du mu Wally Seck du centre de peuple ni ko tuddee mm-hmm. ah mm-hmm. mais ñaata nit dafa dimbali ñaata géer dafa dimbali ñaata tukuleer fi dimbali ñaata ñeeñu fi dimbali te ku ko soxla da nga koy woo te ñu koy jël nii bu ñu neexoon naan ki Wally Seck géwël du leen tëggal na nga ko arrêté xool moo xew de te mooy tey réew mi fi nekk nii centre du peuple ah mais kon loolu amul sens dañ jéem a xoolaat suñu valeur quoi ak sunu aada ak suñu cosaan wala nit ki bu amulee dara du ma ko may sama doom mais ëllëg kooku ba demee ba am sax da ngay rus. mais tubaab day sangu set. Mhm. tubaab ko moo xam nga tubaab koo xam ne du sangu set. man bu ñëwoon du ma ko may sama doom. Mhm. man na yaru jaamu yàlla yàlla rek moo am kenn amul. xam nga tey mën nga jëmba sa garab mais chaque jour arrosel mu daal di meññ bu meññee feex bi daal di dal ñëpp. fii gis nañ fi la ne ngay gis koo xam ne euh, jabaram di dund si pantre tey yàlla may këram yàlla mu nekk milliardaire loolay baasu sëy jigéen dafa war a fa fekk foo xam ne tey amul dara tey nga daal di fay def dara waaw voilà nga xam ne kii yaa fekkee lépp macha allah léegi nag da ngay ñëw ñaan diw may ni ko trente million vingt million sëy bu tas amul sens waaw di ëpp di jaay di mel ku yor sa daral di jaay. dégg xam nga téye sa daan xar bi un million xar bi dix million xar bi million nañ may xale yi te yàlla tax mhm. ñu bàyyi li def kii géwél la kii géer la affaire yooyu loolu moom je pense léegi mu ngi wàññeeku quoi amul sens quoi wax dëgg yàlla ko ndax ay buur yeeg yooyu ko fi indi ay kii sama ñeeño laak parce que bu njëkk nag géwélu juddu sax dafa amoon géwélu juddu dafa amoon xëy na léegi nag la amatul waaye man mi sax am naa géwélu juddu kon nag. dañ ko fee fekk fi lañ ko fekk di wax yàlla mu mag ñi di ko doxal di ko doxal jamonoy dox nag jamonoy dox di dox ba ñu commencé koo dindi ah ku ko jàpp ba nëgë ni nag xëy na yu yaa ko jàpp waaye de yàlla moom waxul loolu yëpp ndax li ñuy wax rek ñeeñu bi dana defal géer bi géer bi dana defal ñeeñu bi te léegi sax gis naa ne ñeeño yi li ñuy defal géer bi mopp li ñuy defal li géer ñi defal ñeeño yi ndax yàlla moom moo mel noonu waaw ku nekk ak sa wërsëg comme ni ko xale bi waxee sànq gis nga Wally Seck lu teraange yi mu defal nit ñi man da defaloo defalu ma ko wax dëgg yàlla waaye nag gis naa ñi mu koy defal kon nag loolu damaa defee ni amul benn solo dafa amul benn benn solo pour ñu naan géer laa géwél la en tout cas bëgg na sa doom bëgg na may ko ko moo gën a jekk moo gën a rafet te loolu la lislaam wax leneen loo ci def boo lëggee lu ci xewtu responsable donc loolu man damaa defe ne yëfi caaxaan la rek fi ñu toll nii ci jamono jii bu doon bu njëkk ba de xëy na waaye bu doon léegi day lu ko ku ko defit muy ci côté ku góor ki a côté ku jigéen ki yëpp ku ko ci defit da ngay def loola neex rek waaye yàlla santu la ko ndax armée li boo ci demee doo xàmmee géer be géwél bi doo ko xamee ñëpp benn lañu te jullit jullit rek la jullit jullit dong la doomu jullit la xam nga ne doomu jullit la baax naag baaxul na kooku yàlla ko xam waaye xam nga ne doomu jullit la bëgg na sa doom sa doom bëgg na ko may ko ko jeex ñu avancé dem suñu yoon amul xuloo amul werante leneen loo ci def nag li comme ni ma ko waxe rek boo liggéey lu ci dikk yow la rek téere su ngay góor gi nag wala ko jigéen ki li ci ëpp nag ñu jigéen ñi rek ñoo koy ñooy ñooy wax yooyu jigéen ñi ñooy wax yooyu mais góor ñi sax ñu ci bari seen mentalité léegi dépassé loolu ndax góor ñi jàng bari nañu léegi jigéen ñi aussi sax ñi jàng bari nañu ba seen xel sax newatu ci yooyu waaye nag ah en tout cas ñu gën a góorgóorlu daal te xam ne yàlla rek moo fi ne yàlla kese kese moo fi kenn newu fi te kenn yorul kenn yàlla yorul ñëpp yàlla moo yor doomu aadama yëpp li may wax naan sa kër gi nga xëy fa jox dépense cinq mille yoroo leen de yàllaa leen yor te bala nga ko xam nga woon leen gannaaw danañu dund ba màgg ba takki jabar wala ñu amee jëkkër te doo ko fekke kon nga xam ne yàllaa leen yor te yàlla yor ñëpp kon nag ñu góorgóorlu ci loolu affaire boobu daal nañ ko teg de côté te maye gone yi bu ñu bëggantee moo gën a wóor asalaamaaleykum wa rahmatullah